de génération, il y a une compétition de génération politique mhm. dans l'opposition. Très bien. Bon, parce qu'il y a une gérontocratie qui est dans l'opposition. ay bon donc les 40 ans 45 ans ils war bat li mi laa di dama yëg rek bon toogal toogal toog leen xaar ba 2029 mm. ngeen di doog a ñëw dinañ dina ñëwaat bien ah, sûr Malick Malick Gueye ci ci yeew yi ak situation bi day faatu ak ak mm-hmm. nu mu demee mm-hmm. euh, ñu ñu dem ci Alassane aujourd'hui euh, gis nañu la sortie de yeew yi justement euh, bi nga xam ne def nañu ko ci week-end bi presque en pleurs ci ki nga xamante ne moom mooy Habib Sy Aïda Mbodj état de santé bu Ousmane Sonko inquiétant ba ñu jàpp ne sax bu ñu leen daboon wax leen loo xam ne lu naqari la amaana ne du ko yeewi yeen également lolou naka ngeen ko gisee amu leen ci ben sensibilité de la peine euh, euh, oui euh amoon na ben émission buñ ñu doon seetaan buñu xalé ñu xale au théâtre ce soir quand je les ai vus pour dire quoi j'avais pitié de parce que ay mag waruñu toog ci télévision ci wax lu dul dëgg. da nga jàpp ne ah ñu wax amul fan nga ko teg mais attendez. Mm. Mais l'hôpital principal, c'est un hôpital militaire. Oui. Et les gens doivent les soigner. Mhm. Euh, tu as vu une personne, 30 jours, l'école Nanoul, 15e jour, de Niger. Mais c'est fantasmagorique. Il n'y a qu'au Sénégal que ça peut arriver. C'est un miracle de Dieu. Et pour dire que da nga jàpp ne li ñuy wax ci grève de la faim bi amul. mais grève de la faim amu fa. ah Ousmane Sonko grévewul. grévewul benn yoon. Mhm. grévewul benn yoon de la faim. mu ngi ndekki mu ngi añ mu ngi reer. waaw mu ngi ndekki mu ngi añ mu ngi reer. waaw mais loolu fa fan nga ko teg Alassane. waaw fi ma ko teg parce que. Mhm. quelles sont les preuves que vous avez pour. dire les médecins. oui et l'autorité euh, qui est chargé de la justice. Mhm. mais xam nañ état de santé bi ñoo gën a xam ñi état de santé. mais mais fan lañ ko waxee parce que kenn déggagu ko. kenn déggagu ministre bi waxoon na leen sax ni ndekki na.

waaw mais mais xam nga parce que xam nga lu tax non attends attends rek xaaral ma wax la. il y a l'administration pénitentiaire qui a sorti un communiqué pour voir son état de santé pour wax na mi ngi ci réanimation et jusqu'à présent dara génnagul pour. wér waaw bañ leen ne boo leen continuer wax réanimation léegi ñu génneel leen photo loo gis tey jii j'ai pas vu benn euh, montage photo un gars qu'on a interpellé à Libreville xaw ma ku doon def euh, grève de la faim def ku feebaroon ñu jël montel ko defal ko bopp Isman Sonko mais il y a il y a toute une manipulation dans cette deux histoire bords, monsieur Cissé, non amul deux bords xam nga xam deux bords parce que dafa am ñuy manipuler non attends dafa am ñuy manipuler mhm. am ñuy génnee manipulation bi mhm. donc il faut pas que nous, naan ay deux bords non non nous côté la ñu xamee manipulation. au Sénégal non lu jëm ci grève de la faim bi a ngi nii di ko bañ te ñu ngi. mais mais attends tu sais 30 jours nit koo xam ne lekkul def na tey Bobby Sands ñaata temps la def après génn àdduna. Mhm. en 72. mais quand même soyons sérieux mënuñu ne wax nit ki lekkul naanul ba pare nga am euh, temps wu bind une lettre au Nigérien hein, di wax ak ni di communiquer ak nit ñi di ay mots mais quand même ça c'est il faut être sérieux quand même. Ouais, mais keroog boo gisee les c'était pathétique. C'était pathétique. Parce que mon Fogonani, Abib c'est un ancien ministre d'État, directeur de cabinet d'un président de la République. Aïde, Aïde Mbouj. mais, mais Alassane, niveau Mais pourquoi, pourquoi Nyom, ni pratiquer l'État au plus haut sommet, se mettre à distiller de fausses informations Il devait avoir même un peu de décence pour bañ ko wax. jox ñeneen ñu wax mais ñom rek ñoy soutenir lool parce que. Bah, Pastef aussi ñom ñoo et et Aïda n'a pas visité Sonko. ah oui oui c'est Habib Sy qui était eh, non c'est Habib Sy c'est Habib Sy c'est Habib Sy qui est rentré Aïda Mbodj n'a pas vu Sonko donc vous comprenez elle a dit le contraire hein? non mais mais mais Alassane li ma bëgg a xam li ma bëgg xam mooy Alassane maintenant li ma bëgg a xam mooy nit koo xam ne la feebar na mi ngi ci hôpital mi ngi ci réanimation l'administration pénitentiaire communiqué ci loolu yow eu ci ben sensibilité Madame Ben yërmande connaît... dul euh, que ne c'est pas question de sensibilité non c'est pas question de sensibilité c'est quoi parce que au-delà de la grève de la faim parce que euh, il est malade c'est d'après ce qu'on dit non on dit qu'il est malade mais on n'a pas communiqué sur sa maladie non son avocat maître Cyril Clédor il na am na début d'insuffisance rénale mais aussi non attends attends malade. Il a non laissez-moi parler maître Cyril Clédor il peut vous parler du code pénal mm-hmm. du code de procédure pénale mm-hmm. mais ce n'est pas un médecin mais il a dit il n'y a qu'un médecin il n'y a qu'un médecin qui peut parler de l'état de santé de son euh, euh, client ils ont un devoir de réserve, le serment d'Hippocrate. Donc, ils ne peuvent pas communiquer sur les raisons de sa maladie. Mais ils vont de supposition à supposition. man suis ma toogoon fii génn le bon foie baa nga médecin je l'ai vu de visite comme ça est-ce que man mun naa joxe diagnostic ku na yam ci métier mais chaque jour, vous entendez une chose, le lendemain, une autre chose. Donc, ce n'est pas question de... Qui Nous respecter les Sénégalais, quoi. Justement, à propos, du respect envers Sénégalais yi ndax moment bi nga xam Sénégalais yi vie cours de la vie bi sonal na le jafe-jafe yi amaat na courant bi inondation yi am na ci zone yu bëri ñu ngi jëm màggal Touba jafe-jafe yi am fi yéen ngeen tal au niveau de la mouvance présidentielle di tontuwante ak ay intellectuels yoo xam ne dañoo ñëw di joxe ay remarques ci yorinu réew mi. non benn pàcc moo tontu. ah 1200 non ñiy liggéey ci inondation yi ñu ngi cay liggéey. nit ñi ñëw dëkk dans des zones non aedificantes. loolu c'est la faute à qui? dégg est-ce que c'est notre faute on a trouvé ah, cet état non, de fait non non attends l'état c'est une continuité non même si l'état c'est une continuité quand il y a des personnes yu dem dëkk ci ay zones Fatou Abdou waroon nañu leen mën ko jëlee imposer ko pour bàyyi ndox mi jàll nga Alassane da ngay affaire il y a eu en 72 73 la sécheresse qui a fait que les nappes phréatiques dugg sénégalais yi dugg ay wax naan ak yooyu boobu lañ ko te da nga doon waxi même pas 50 cm nga am ndox mais sécheresse bobu mo taxone ba gis nga autoroute à péage bi ñu waroon tabax en 72 Senghor ne du ko tabax jël xaliss bi investir ko ci population bi né bu mënul population am am famine muy tabax autoroute à péage. mais yéen def ngeen plus de 700 milliards. ci non même même inondation yi même xam nga inondation du loy gis le euh, c'est-à-dire kii le bo xamni parce que dafay am il y a la nappe phréatique il y a aussi des fleuves souterrains donc Touba par exemple fleuve souterrain j'ai un foufou. n'est-ce pas am ci solution pour tax plan national de lutte contre mais oui mais parce que dañuy jéem. Hmm. mais inondation du loo du tic au tac lay demee.

nena le Touba fleuve mo jaar ci suuf c'est pas la nappe phréatique donc il faut comprendre ça beneen bi mo bëgg wax leen je rappelle une chose euh, honorable quoi franchement en campagne électorale amul ben candidat bu ñuy japp pour se dire ñaarel bi moy Sénégal je parle de l'équipe de campagne non xaaral rek déglu ma Sénégal Bo respecter loi et règlement yi di dox ni ngay doxé kenn du la japp. Qu'on respecté wul japp lolu quand on respecte les lois et règlements du pays y aurait parti tënku ci l'article 4 de la constitution au moins ken dollars. Il y a combien de partis au Sénégal ken japp ci ken benn parti lañu dissoudre parce que lan la c'est un parti hitlérien ils ont traduit Mein Kampf en wolof Si ils s'ils étaient au pouvoir nga une carte républicaine composée de jeunes Ça nous parce qu'ils ont essayé avec le règne de la terreur loolu fi am mais il parti a ñu ngi qui seen été kii ñu ngi def activité personne d'accord Nous sommes ci El fi ne nii ñu ngi dëkkmal parrainage yi opposition ba léegi kenn xamul ñaata bloc la ñu def yaa a tellement de posants yi nga xam ne